بحب محمد دخول جنان الخلد له كنت عاصيا نجوت من المولى محمد دخول جنان الخلد لو كنت عاسيا فكيف أخاف النار والله قائل صلى الله عليه وسلم فصلوا على المختار ذو الدين مرضيا صلى الله عليه وسلم وحصل دواما مدح النخبة هاشم كما قاله الدباغ ذو النفس زاكيا أخي لا تودعني إذا كنت راحلا إلى المصطفى حبي طبيبي بدنيا فدعني بحبي مع خيالي ولهفتي أديم صلاة مع سلام الإلهي بحبيا محبته زابت فؤادي فوالذي بيديه نفسي ثم روحي وكليا هو الله رب العرش جل جلاله فيا رب فاشهد لي فنائي وشوقي إلى أفضل الأكوان لست بغائب إيه يلا علمت علمت بأني في فناء وهيام يا فوالله ليست فرحة liya fil jinaani laa xuurihaa laa sawbihaa fasxi qawliyaa ولا ذهبها لا ثمرها لا حريرها ذهبها لا خمرها فوع ربها بل الفرح فيها في مجاورة النبي عليه الصلاة مع إله مع سلام الإلهية xulya bil jannaati duuna jiwaarakum takunu jinaanan dayiqan bi zunuuniya ayow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam وسلم waxal ak yàlla قل الله رب الناس يا سيد الورى ndeysaan ليغفر لي ذلاتي ما دمت عبديا laqad saxa fi l israai annaka abdu yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa anta habibi tibba qalbi wa ruxiya la kawniya abdullah كفانية عند الله مؤلي عبودية بشوقك منذ اليوم ما زلت حامدا وما زلت مداحا لكم طول عمري yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alimtu yaqinan laa yudaamu habibukum fa admin li al iqbaala xubbi wa shawqiya seen waaja sunu waaja alimtu bi anna allaha mu'ti wa antumu yow yonent bi la qaasimu faqsim lii jamia maramiya ku am janeen géer jëlal ba maag yonnan ba nan ba Allah sama ñaari loxo ku sopp Seydina Muhammad ku am gënal gënal ñoo ngi ci yonen ba adduna bi gisuma fi geneen géer déedéet gudul Seydina Muhammadu la min Fatimatu kenn kër moo de yanan ba xalam naa sama loxo jàpp ci yonen ku am geneen geneen jëlal ma ku nu fi way naan la yaay géer dañu lay nax dañu lay jay sama waaja rek gay géer genn géer moo di yonan ba talal naa sama ñaari loxo jàpp ci yonan ba ku am geneen géer dëlal ma ngi ci yonan rasulullah yàlla gën sa ñu màggal yónneen ku nangu ni rasulullah yàlla gën sa loxo ku nangoo ku bañ na bey ki la gën jàpp leen ci yónneen ku nangu ni rasulullah la gën sa loxo ku nangoo ku bañ ku bañ ku nangu ñëpp a yam musu tafaare kay jàng ku bañ ku nangu ñëpp yam ñëpp am Mustafa rek ay géer ñi géel a am waaye ku ne xam na ni moo di yonen ba waaw ku nangu ñëpp am Mustafa rek ay géer ñi géel a am waaye ku ne xam na ne moo di yoneen ba bu yàq neexee jar na jaraw lak jaajëfe yoneen bi bi borom raw du be bu yàgg neexee jar na jaraw la ki jaajëfe yonent bi julli leen ma julli ci yonent bi borom raw du be ndax julli ci yonent bi moo am koom amul pertement eskay na yonent sama baat jaasi ju ñaw di way sayyiduna Muhammad jàppe naa sama baat jaasi ju ñaw di way saaba ya daan xër ànd ak yoneen sama ba abija si ju ñëw di way sayyiduna Muhammad saaba ya daan xër ànd ak yoneen asan balligu anni la nabi waxoon walaw aayatan mënuma waaraate kon ma jottale dagg yoneen ba jottale tagg yonent ba allahumma salli wa sallim wa sallim ala sayyidina muhammadul ak ñoo ñoom yaa li feeg ñuy way yoneen salli wa sallim wa sallim ak ñoo ñoom yaa li feeg ñuy way yoneen ca kaw yàlla dogal mu dogal may tagg yoneen ak waa ki neex na noo yàlla ko def lii fa samay xam na waaw ñu tagg yónneen ak waa këram waaw waaw yàlla ko sunuy pexe xam naa ay waaye ma jaajëfal jaajëfal ñu sopp yónneen te ko bége di ko bége ma jaajëfal ñu sopp yónneen te ko bége di ko bége di joxe seen alal ngir yónneen ba war naa waaye ma jaajëfal waaw sopp yonent di ko bëgge di ba joxe bi moo ci gàllankoor deful ci Mustafa Mustafa moom a gënal ndey baay ku sopp Seydina Muhammad loxoya moom la dee way moom a moom la dee way ku sopp Serigne Babacar loxoya moom la dee way Alaaji Mansoor lane ama kooku mooy borom barrière